www.sangatv.com alaaji aala mbay bëgg mbaxal de ko ci yokk parce que boo ci waxul bëgg mbaxal bi day mer ne leen mbay bëgg mbaxal man la alaaji ma mbay bëgg mbaxal yóbbante bi bu mu jaar ci loxo kenn ku dul sa loxo dem ci yuusu Kouthia man ab saalum saalum laa di doomu senegal ak Gambie lii ma la jox nii sama téyër ki may ñawal moom ma ñawal ñawal ko ñawal la bu mu jàdd fenn nanga ko teg ci loxom yaay xool nag noo koy doxalee bu ko ci tegee na ko alaaji aala mbay jël na garaam bu bii ñaana la ci jox la ci yow jëlal sa bas nga sol moom mu sol basam bu ko defee sama xol dana sedd guy bu ko jëlee rek nangu ko sama xol dana sedd guy loolu mooy yóbbante bi nga xam ne moom laa lay yóbbante alaaji ale waaw damay kontaan bu baax di la sant di la gërëm waaye damaa bëggoon nga wax ma lan moo tax nga taamu émission Kouthia Show Kouthia dama koy seetaan yem ci way bi nga xam ne moom mooy soxna Bintu Thiam la muy way tarixa tijaan tënk ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci taraxi ba yëpp di ci bàyyi xel mu neex ma tarxiis la caa wax ca lawlu après mooma yóbbaale ba ma xam ne mën ngaa seetaan émission bi te dara la ci fekk te dama cee bëri borom ndax suñu kilifa sëñ Mbaye Sy Mansour bu bëggee ku Kouthia ñun taalibe yi waruñu koo bañ war nañu xool li intéressé sëñ bi ba mu bàyyi xel ci Kouthia ñun ñu mën cee bàyyi xel te du man man du man rek imam Thierno Aliou Ka imam Ratib bu Banjul noonu la mel ci Abou Bilal moom soxnaam kon dañu koy moom Kouthia boo demee nga gën a góorlu ci li ngay def te bañ cee yokk leneen loo xam ne dafay tooñ bul déraper bul rappe teg ko ci fi koy teg ndax imam ratib bu Banjul amul jot bay bàyyi xel ci lenn yi rawatina sëñ Mbay Si Mansour amul jot bay bàyyi xel ci lenn yi bu ñu demee ba kilifa diine yépp daa am mbégte ci yow ci li ngay wax yan na la yàlla musal ci làmmin ak cat te xamal ne sa baay mooy alaaji aale mbay bëgg mbaxal boo demee nga joxoon ma ko yuusu bu solee baax na bu solul baax na waaye na nekk ci moom mu koy xool ndax alaaji alam bay bëgg baxal ku sopp yuusu la ak ku sopp loo xam ne moom mooy jëm ci émission Kouthia Show yal na leen yàlla teg ci yoonu jàmm te nga xam ne kër gi ñëpp ay soppe nga fi am Gàmbi gi yëpp ay soppe nga fi am dëgg la dëgg la ñun dañ lay gërëm di la sant bu baax uh-huh. di ñaanal yàlla dëgëral sa taxawaay amiin yow ak sa njaboot amiin waay moom ay ndongo lañ rek ñu ngi sàkku ñaan saa suñ tol rek mm. di sàkku ci yow ñaan déet man duma sëriñ mm-hmm. ab commerçant laa damay jaay tappi rek dëgg déet du ma sëriñ boo ma waxee loolu day mel na sëriñ laa mm-hmm. lii dama koo def ngir cofel gi ma am ci Youssou Ndour ak mm-hmm. Kouthia waaye du ma ñaan kat waaw du ma ñaan kat boo waxee loolu da may dugal déedéet du ma ñaan damay jaay tapis rek lii nag soo gisee ma def ko bëgg Youssou Ndour ak li muy liggéey te nit bu nekkee ci dara di dimbali ay nit dafa am solo Youssou Ndour baaxaayam boobu mu baax tegu ko fenn lu dul baax barki démb maa ngi dégg ku caadi ko kalaame ne dina ko boole yaayam ak yàlla dina kalaame yàlla boole ko yaayam wax na dëgg nit bu baaxee say mbokk ñoo koy wax ak say dëkkandoo munta bon ndax lu mot téeméer muy deux cent ba trois cent ba quatre cent employés nga leen di fay ci xaalis boo xam ne bu la neexoon noosee ko jënd say supp ak say misu yow dong ak sa njaboot nga tasaare ko na ñëpp supp na ñëpp misu yi na ñëpp naan soow na ñëpp dawal oto na ñëpp takki jabar na ñëpp sëyi ci sa benn jëmm nga tasaare ko kooku boo nekkul nitu àjjana nitu lan ngay doon moo taxit julli rek yoxul tax nit dugg àjjana julli yóbbul nit àjjana xol bu rafet mooy dugal nit àjjana ak jëf ju rafet mooy yóbbu nit àjjana njort nañ ci moom yal na ko yàlla guddal fanam may ko wërsëg bu yaatu mu téye leen bu baax Euh, am naa yóbbante nag. Euh, ci sama groupe bi. groupe Kouthia Show. waaw ñoom dañuy dégg may faral di tudd lu bari. waaw naan Alaaji may bëgg mbaxal. ñoom ñu may laaj lan moo waral bëgg mbaxal bi. waaw bëgg mbaxal mbaxal moom kenn war koo bañ <laughs> xam nga ñun ay ndongo nañu. te boo nangee ndongo nekk ci daara doo bañ dara luñ la jox nga lekk lu ne suppu kànja bu ànd ak soow soow bu ànd ak dugub dugub bu ànd ak ñeleñ xamoo ña xamu leen ñeleñ xamu leen ndimb féeréer ak yàpp ak soos yëpp danga koy jaxase lekk ko boo demee kokki ak daaro yu mag yëpp loolu na ñuy dundee te du la indil benn feebar looloo sa kër la alaaji aala mbay bëgg mbaxal du ma ñaan kat jaaykatu tapilaa léegi nag su ko defee neel yuusu Kouthia neel yuusu bu demee na la jéem a utal oto bu mag ndax oto bi mu fi indi mënul daw Dakar Gàmbi boo ko delloo ci yoon bi bu paane na la utal oto bu baax bu dëgër ñaareel bi. yaa ngi koy dégg baax. waaw ñaareel bi na fexe ba utal la caabi kër boo moomal sa bopp dégg nga waaw. mën nga ko waxat nga ne Youssou. ma ne loolu dañ la ko yéene rek nan la ko defal. mën nga ko waxat répété ko nga ne Youssou. boo demee Abou Bilal Koutia yéene nañ ko nga jox ko oto bu mag bii ndax xale la oto day màgg 2012 ba léegi yàggee ak moom na oto ba màgg kay ndax moom màgg na waaw Koutia bu nekkoon ci location. bu yàggee nag foo nekk di loué bu yàggee nag boo ko moomul sax utal foo moom na ko def jërëjëf Mbaye jërëjëf la amiin incha allah li nga ma wax lépp dinaa ko wax Youssou amiin yaa rabbal jërëjëf na ko def de jërëjëf bëgg mbaax bu baax la jërëjëf jërëjëf moom baaxaayam boobu xaw ma fu mu la jërëjëf waaw balaa may gëm na baax na dëgg dëgg dëgg dëgg taal télé bi gis ko mu yëkkati caabi oto lii rek ma jox lii rek laa ko jox dàll yi ak garaam bu bi amul lenn lu ci rax ñaanal ko yàlla mu defal ko jàmm amul dara amul dara ah. waaye nag na la fexe rek ba am oto bu mag ndax bu ndaw bi yàgg na lool 2012 ba tey la ba ma la xamee ba léegi moom ngay dawal am nga kër kese la amagoo kër waaye na la fexe jox kër loolu yomb na ko du dara ci moom mais yére bi rek nga ko jox yére bi kese kese kese ak maraakis yi yéene naa la oto bu ndaw boobu dafa tuuti mais Youssou Ndour amul benn enveloppe boo ko joxaale boo oto gars yi duñ gis de duñ ko gis de buñ ko muuree da ngay ne ci diggante bi waaye na la jox bu mag waay mais nga leeral ne Youssou ma amul enveloppe déedéet amul àndul ak dara dara man ni laa ko joxee Kouthia da daru dara ma fi nga dëkk moom baa yaa ngi ci jàmm moomoo ko way na la jox kër loolu yomb na ko ah, way yuusu ma ne ee eh, yuusu jox ko kër nag yomb na ko non na la ko jox yuusu joxal Kouthia kër ndax gént naa nga koy tabaxal kër ak lanaat noonu rek la ak oto ak oto bu màgg mais lii rek nga jox lii rek la ak amul enveloppe bu mu ci teg dara ah. dégg nga amagoo kër ak oto amaguma kër ak oto na la jox kër ak oto yoo yuusu waxuma leer yuusu wax wala ko jox ak kan